fan nga ko xàmmee fan nga ko xàmmee que jaawle woo ko am na ku fi nekkoon niroo nañ de mais moom de est-ce que jaawle woo ko kii bu fi commencé yàggul de est que jaawle woo ko ko mu tuddoon ban tur la kii nag aji la tudd aji aji la de est-ce que jaawle woo ko ma xale jigéen ñi dañoo mën naa am mais man de wax dëgg man yaakaar naa kii ma asiwul de. tey nii tey bu rafet la njool am forme nag te set daa wàcce guñ sa tey samedi bi ñoom nee dañu guddee wàcc dañu liggéey ba si kanam man xaaral ma woola boole la ak moom fekkee defoo dara nga jaar fa boo fa jaay da am dara xale bu set la bu mu commencé si man yaagul bu mu commencé si man man nag léeg damay fàtte parce que ñi may yor ci fii day bëri te léeg-léeg fii ñëw arrêté commencé waat ma fàtte ko mën na nekk am na keneen ku fi nekk de mais kooku moom xam dafa xaw a ñaaw xam naa doo ko soxla am na keneen ku fi nekk mais kooku dafa xaw a ñaaw